bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xoolee kalal du tee ñu xëy xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam audu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokk yi seetaan axiru zaman dellu siwaat nañu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci axiru zaman di jaajëfal ñii seetaan ñëpp fu nu mënti nekk ci biir réew mi bitim réew tey mbokk yi ñu ngi indi benn tomb di ko waxtaane tomb bi mooy arishwatu arab yi ñoo ko koy tuddee wala fi di ko tuddee nger tubaab yi di ko tuddee corruption li waral ñu indi ko mooy mosu fee jóg ci réew yëpp sunu réew it mosu fee jóg waaye dafay am tànk yoo xam ne mat na léeg-léeg buñ toogee ba jëmmi jamono ñu jéem a taxaw waxtaane ko ndax yàlla doxam mën naa mu yéex bañ a gaaw su mënta taxaw danañ dëkk ci ngeer ci boppam mooy lan li ñuy tuddee ar rishwatu ak as soxtu lan moo leen tàqale yan xeet <coughs> ngeen baal ñu mooy xeetu nger yi am na ci boo xam ne nii dafay xaraam ci ñaar ñëpp kiy joxe kiy jël am na ci ngeer boo xam ne nii ci kiy joxe du xaraam ci moom mais ci kiy jël lay xaraam ci moom yooyu yëpp incha allahu taala danañ ci dikk ci biir waxtaan wi yan aaya ci alquran la ñuy dellu yuy wax ci corruption yan xadis ci xadisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam indi yuy wax ci musiba yi nga xam ne nii moo nekk ci nger loolu incha allahu taala mooy doon li nuy waxtaane waaye tey ñamali gi laataa ñuy dugg ci waxtaan wi dafay dellu ci daje bi nga xam ne opposition bi amaloon nañu ko <coughs> démb ci àllarba ji am ñaar yoo xam ne tax na ma ubbee sama kàddu ci émission tay bi ci daje boobu noonu le muy ñaari mbir yoo xam ne dégg naa ñi yëkkati seen kàddu ñennat ca ñoom wax ko fa mu yell ñu taxaw jaajëfal leen ca ci kàddu yooya wàññi naa ca lu man ñeent ñu yëkkati kàddu wax ci ñaari mbir danaa tudd mbir ma danaa tudd ñana seen kàddu yooyu laa leen di sante gërëm leen jaajëfal leen seen kàddu yooya lu génn kàddu yooya nag dama leen koy bàyyee en tant que ay politiciens yu dajaloo woon di waxtaane seen mbirum politique te may faral di wax ni dama mos a gëm politicien la ma dugaloon ci gëm ko di ay discours am ki waxam ma jële ca déception ci laa jaaree ba léegi politicien bu may convaincre ci du yombati loolu dama koy wax pour muy leer pour dooree ko lii may bëgg a wax ragaluma nag kii nga faral ak nga faral ak fii nga féeteeg fële nga féete waaye man maa gën a xam sama bopp ñëpp man daal ci jamono daal yàgg na léegi mu mat fukki at xanaa amoon naa yaakaar lool ci politicien waaye fii mu tol nii la yàlla xam doy na ca yaakaar googa noonu le loola waral ay waxu politicien seeni jëf am na ci yooyu dama leen koy bàyyee en tant que ay politicien yuy wax seen waxu politique di jëf seen jëfu politique waaye li ma ñor nag politicien bu ko wax li may xeex politicien bu ma koy xeexle dana yell ma taxaw ne la waaw góor ne la jëf yam fa daje bi xam ngeen ne du daje bu ndaw nit ñu baree bari teew nañu fa ma dégg fa ñaari kàddu benn bi mooy lu jëm ci wàllu ngóor jigéen lu jëm ci wàllu ngóor jigéen ñu yëkkati kàddu naqarlu ko joytu luwaa bi nu boloke ci assemblée national te ñu nekk ci pouvoir bi seeni dépité boloke luwaa bi ña xarlu bolocation boobu noonu lee sàkku wala dige ne bu nu demee ci assemblée national ba danañu fexee débloquer loi boobu voté ko bu ñu amee baat yu leen ko may loolu de am naa ci mbégte xaw ma danañ ko defam duñ ko def nag xaw ma danañ ko defam duñ ko def waaye daal man loolu nga xam ne maa ngi koy sàkku man mii di Makhtar Sarr ma dégg loolu ñu wax ko te dégg naa ca ña ko wax ñu yàgg a wax lu nimel loolu bég naa ci sant naa leen ci gërëm leen ci ñaareel bi mooy mbirum professeur Cheikh Oumar Diagne émission daayira bi weesu ci Seneweb moom laa ubbee di dénoncer di ñaawlu jaay doole gi nga xam ne léegi war na leer ci bopp ñépp ne dañ ko jaay doole nekkul lii nekkul lële nekkul wax jee nekkul wax jële nekkul jotee ñi nekkul jotee ñële du yooyu yëpp mais lu dul jaay doole defuñ ko ko tëj ko ci kaso bi ngir ne dafay déranger góor jigéen yeeg franc yi li moom defe naa ku mu leerutoon ci sa bopp léegi mi ngi leer si ci sa bopp te ñi mu leeragul ci seen bopp dana gën a leer ci seen bopp te loolu noonu ma doon jooytu bokk ci kuréel bu tudd ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi ànd ak kolikot ñu def benn collective ngir dañoo bëgg ñu liberation Cheikh Omar ci daje démb bi ñu dégg kàddu yu jib di sàkku ak bàyyeem ak di wane jaay guñ ko jaay doole loolu jàpp naa ne ñu yëkkati kàddu googu noonu le man lañ ko yëkkatil muy ñeenti nit ci ñaar yi ma wax kenn ki mooy Mamadou Lamine jàlloo keneen ki di Dame keneen ki di Cheikh Mbacke Baara Dolli keneen ki di Ousmane Sonko keneen ku dul ñoom bokk feneen it su waxoon ci ñaar yii nga xam ne nii man jàpp naa ne yitte ju ma ñor la mooy ñu criminaliser ngóor jigéen te libéré Cheikh Omar Diagne mii lobité keneen ku ko waxoon ku moog man ti bokk ma jaajëfal la ni ma jaajëfalee ñii kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ci seen kàddu yooyu noonu le ndax bu leen neexoon ñu bañ ko fa yëkkati ni nga xamee ne bari na ñu fa wax te yëkkatiwuñu kàddu jëmee ci ñaar yi kon ñe yëkkati kàddu jëmee ci ñaar yi mat nañoo sant mën nañoo gërëm sëriñ Babacar si moo doon wax ne wolof nee na àll matula nawee nawe matt mu ne déedéet àll kay mat naa nawee matt ndax àll daa rëyee ne àll te amul mët moo tax àll mata nawee matt ki def lu ko war ñu ne matu la sant aha kay am na ko xam li ko war te defu ko te waxoon naa ko benn mbokk bi ñuy wax ci mbirum Cheikh Omar Diagne ma ne ko ñu ngi déglu politiciens yi ñoom itamit rawatina yenn leaders yi ndax dégg naa Cheikh Omar Diagne ci jamono yenu nekkee ci xar-xat mu taxaw jël risque yu bari ci défendre leen ak waxal leen te ñooñu déggaguma leen xëy na message boobu yegg na ci leader yooyu noonu le ba tey fu nuy waxee ña ngi koy bàyyi xel ngir soutenir ko loolu daal mooy sama mbégte ci ci jataay ba la ca des nag ci ay kàddu yu fa ak seen mbir ya taxoon ñu dajee loolu moom seen yëfa en tant que politicien ñi ànd ak ñoom waaye man maa ngi resté fii waaw maa ngi resté fii ma reste nii ba tey mooy daal am na yu ma nekk am na yu may xeex ci laa yemagum di ko xeex dompat ci sot la bokk ku ma ko xeexle mën na la jërëjëf la ca des nag am na ñoo xam ne nii ñoom féete nañ fa te mane nañ fa ña fa ñu jaajëfal leen ñoom ci féete googa ñu féete foofa waaye ba léegi am na sax ku ne ma dangaa war a jël position mu ne ko ci lan mu ne wax ne nañ woteel ñoom diw mu ne ko diw ñan man kenn da cee niinal sama ceeb ba ma naan nañ woteel ñoom diw diw ñan ñan sama kàddu waajagul bay ñor naan nañ voteel ñoom diw danaa dénoncé nag danaay dénoncé danaay naqarlu képp koo xam ne yu bon yii ma dëkk a wax bu ma dalay wax ba tey gis naa ne yaa ngi koy dooleel ak a a dëgëral danaa la dénoncé ba ñëpp dégg ne dénoncé naa la waaye ah du tekki kat ne damay taxaw na kële ñëw naan ma lii lële ma ne kii nag moo mat a jàppale man gisaguma ko ñor ku tax ma yëkkati sama kàddu naan jàppale leen ko loolu it danaa profité waxaale gum ko ndax nag léeg-léeg dafay baax yenn yi nga wax ko ñenn ñi mu dugg seen bopp ñu xam fi nga taxaw ñu respectel leen ko ñu respectel la ko yow it la ñu nekk fa nu taxaw nga respectel leen ko ñu xam bu boobaa bu nuy ànd nan la nuy àndeek bu nuy nekk nan la nuy nekkee waaye kenn du ñëw rek bëgg ma def yow sa bopp ci ne ma waxeel nii wala doxeel nii wala waxal lii du noonu waaw du noonu moom daal ñi ngi observé ñi ngi xool lu nu gis lu nu bëgg wax lu ñu war a dénoncé danañ ko wax te jëmm yàlla ji dong tax waaye nag yeggul ci ma kenn koo xam ne nii kat yow convaincre gum na la ba naan nañu kii lii ak nañu kii kële loolu moom amagun ala kulli xaalin loolu il faut mu leer ba tax na kon ñi ngi jaajëfal bu baax ñi ma tudd nii Ousmane Sonko euh, Cheikh mbake Baara Dolli Dame Mbodj Mamadou Lamine Diallo ñu ngi leen di jaajëfal ci li ñu yëkkati kàddu ci mbirum ngóor jigéen gi bon lu ko ñaawlu ko ak it ku mel ni Dame Mbodj ak Ousmane Sonko yëkkati kàddu di dénoncer téye gi nga xam ne téye nañ ko Cheikh Omar Diagne dara taxul lu dul jaay ko doole ak lobi yu nekk ci ginnaaw jàpp ki waaw léegi naa Ousmane Sonko wax ko wane ne du mbirum tariixa tax ñu jàpp ko toogoon naa fii nii wax leen ko ne leen nañu séparé ñaar yooyu noonu la jaratul ñu ciy dellu ndax fii laa ko waxee woon ñu <coughs> ñi seetaan ngeen baal ñu déggoon ñu wax ko dégg nañ ko leeral nañ ko alhamdulilah bi nga xamee ne ñëwaat na tey xëy na kàddoom am na fu mu yegg foo xam ne sama kàddu du fa yegg mu leeral ko wane ne du mbirum tariixa tax ñu jàpp ko loolu ku ko dugaloon ci sa bopp bee boo nga génne ko ci ñi ko téye téyeluñ ko kenn seen bopp lañ ko téyel seen bopp lañ ko téyel benn député bu tudd Jibril Waar ku wax lu bon lu ñaaw jëmee ko ci ñiy xeex góor jigéen lu nekk mu taxe leen ko kooku moo ne moo jote Cheikh Omar Diagne mu wax ko lu ko naqari mu porté ko plainte ñu jël ko tëj ko ci kaso ba tey li wane jaay doole gi waaw danga maa wax lu ma naqari dangaa wax lii mais nañ la jël yóbbu la ñu àtte la bala wala ñu àtte la teg la daan ñu xam mais jël ko teg ko ci kaso bi nar ko faa fàtte ñaari weer yu teg ba léegi ñu téye ko ci kaso bi lii jàmm la ci am réew lu mu doon lu dul jaay doole wax naa ko talaata ji rek ci mission daayira bi man leen nag doole moom yàlla yàllaay borom te ñu ngi ñaan yàlla mu jëflanteeg ñi ko teg loxo li la ci ñoom yàlla mi ëpp doole ñi ko jaay doole yàlla na leen wan dooleem barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy ñaan yàlla maa ngi ñaan yàlla ñi ko teg lii ngir jaay ko doole yàlla mi leen ëpp doole yàlla na leen wan dooleem am na fu muy yegg du ñu wee dañuy weesu di naqarlu ak di sàkk ñu libéré koog dem ci mars ki yi dañ koy weesu waaye dañuy tàllal yàlla loxo borom bi tabaraka wa taala te incha allahu taala daanaka nag yegg nañ ci ngir wane rek ni jaay doole baaxul waaw jaay doole baaxul fi may daanelee ci loolu dugg ci thème bi mooy gis nga ànd sàmm jikko yi dem na déposer ay di dizaine plainte booba léegi déggaguñu dara ñu ngi dégloo procureur woogunu juge woogunu kenn woogunu nenu seen plainte bii ngeen déposé ci kii tëj lu Cheikh Omar Diagne di Djibril War fii la toll waaye ñu ngi dégloo de te lu ci am rek ñu ngi dégloo lu ci am ñu ngi dégloo te lu ci am danañ ko dénoncé bu dee lu lu dë lu ni mu war a doxee la ndax li mu war a doxee mooy wane nañ lu leer lu mu wax ci tuumaal aw nit kàddu yu bon yu ñaaw bind nañ ko ci plante ba mu ne fàng wax nañ ko Sénégalais yëpp di ko dégg su fekkee kooku dafa am ñu am pouvoiru làq ko aar ko danañ ko dénoncer ba àdduna bépp dégg ko wala ñu teg ko ci yoon ni ñu tegee ci yoon keneen koo xam ne ni nee nañ moom def ko tooñ lu ko moy rek mu gën a leeralaat ci bopp nit ñi que dëkk bi làmb golo fi am ku mën sa morom duma bu demee nag ba fo ba foofu la ñuy toll nag bu baan li wolof waxaat ba teyee ci nekk mooy nu golo xam boote doomam waaw nu golo xam rek bu boobaa boote doomam waxu wolof la foofu la ñuy daanelee loolu loolu moo nekkoon ñamali gi euh, ñu dugg nag ci sunu tam incha allahu taala euh, ñi ngi waxtaanee bonaayu nger nger mooy lan a richwatu mooy mooy nga yëkkati dara di ko jëndee dëgg joo amul benn la ci xeetu nger di ko jëndee àq judul sa àq xeet la ci xeetu ni ñuy définir nger looy yëkkati di ko joxe ngir am loo cay jëlee loo moomul dëgg nga jënd ko àq joo moomul nga jënd ko ca ka nga koy jëndee ca ka ngay jëlee loola nga moomul loolu dañ koy firee corruption ci lislaam maam lu ñuy tuddee arishwatu ak lu ñuy tuddee asuxtu lan moo leen tàqale rishwatu dañ koy firee corruption nger suxtu yi tamit dañ koy fire nger mais lan moo leen di wuutale ñoom ñaar bu ñu ne rishwa moo gën a yaatu mooy makaana kaana fi ishtiraakin bayna tarafayn firtikaabil ismi fa huwa arishwatu bu ñu ne nger dafay am kuy joxe ak kuy jël kiy joxe li muy joxe ak kiy jël li muy jël ku ci nekk loola nekkul sa àq nekkul sa moomeel dangay ngay jënd dëgg ki lay jox dëgg ji moomul dëgg ji yow mi koy jox moomoo ko ko mais ala fa jaar tax mu jox la dëgg lu mel ni àttekat bi àtte man maa joteeg moor dem ci àttekat bi mu àtte nu moor maa ko tooñ mais maa am xaalis ma jël àttekat bi jox ko xaalis ngir ma jox ngir mu jox ma dëggi moor ji ok su boobaa am na ñaar am na kiy joxe ak kiy jël ñun ñaar ñëpp am bàkkaar loolu la ñuy tuddee ar richwatu ar richwatu mooy am na ñaar kii mi ngi joxe alal ngir jënd dëgg ji kii mi ngi jël alal ji ngir jaay dëgg ji ñoom ñaar ñépp ñoo toggoo bàkkaar bu rëy muy bàkkaaru ger am na kii nger ak kanuy nger bu ñu ne asuxtu nag mooy kenn ki moo jëfandikoo lu xaraam li man maa jël àqu moor lekk ko su boobaa man maa am bàkkaar mais moor amul bàkkaar man mi alalu moor lekk ko man mi jël alalu moor lekk ko su boobaa ñaar ñu am bàkkaar amu fa amul ñaar mais kenn doonga am léegi muy man loolu dañ koy firee li nga xam ne mooy asuxtu bi ñu laajee Abdullah ibn Mas'ud moom nii la wax boo demee ci euh, téere Bayhaqi ba wala soloona moom bay Bayhaqi ci riwaaya bum jëlee ci Masruq mu ne dama laaj Abdullah ibn Abbas ne ko ndax soxtu mooy rishwa fil xukm ndax li ñuy tuddee a soxtu muy nger lu xaraam ndax moom mooy corrompre nit ki ci atte mu ne déedéet du loolu ndax sunu borom atte moom wax na ci lu leer wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayka humul kaafiruun wa zaalimuun wal faasiquun ku atte woowu li yàlla tëral ngir nga atte ko atte woo dëgg atte woo njub yéefar nga tooñkat nga ku génn topp nga mu ne loolu moom mooy li nga xam ne nii moom moo jëm ci wàllu atte mu ne waaye li nga xam ne mooy asuxtu mooy nit ki dimbale la ci tooñ maanaam yow yaa tooñ nit ki am ku la dimbale ci tooñ gi nga ko tooñ wala nga dimbale nit ki ci tooñ gi mu tooñ mu yëkkati dara jox la nga jàppale ko ci tooñam yi mu ne loolu noonu le mooy suxtu waaw ba tey rek du soreeg définition bu njëkk bale mooy yow danga nga yëkkati dara jox ko nit ngir jël àq joo xam ne moo moo ko moomin mu jox la àq joo xam ne moomu ko am na keneen ku ko moom tey dama ñëw bëgg a nangu terrain Omar Samb terrain bi kan moo ko moom Omar kon àqam la moo ko moom ma jóg dem seeti mennum yirim caam moom mooy àttekat bi àtte mooy juge bi war a àtte ma kalaamee fa Omar nekkat moom mii dana ñëw léegi ci laaye ji suñ borom di wax lu mel noonu suuf si maay borom indiw may kayit Omar indi nay kayitam teg waaye man yor naa yeneeni kayit yu bari mooy kayit yu am numéro yi ma yëkkati ji lu bari jox àttekat boobu noonu le mu def ay man manam ba yëkkati terrain Omar ba def ko ci sama tur wala jox ma ko ne maay boroom loolu noonu kii joxe li muy joxe moomu ko man mii jël li may jël moomu ko àq diw mii ñu ma xañ te alal jaar fa mu ngoog corruption ngoog ngera ngoog buñ duggee ci waxtaan wi mën na gën a yaatu waaw buñ duggee ci waxtaan wi mën na gën a yaatu corruption ci dëkk bi ci bërëbu liggéeyukaay yu baree baree bare yoo xam ne nii administration la nga xam ne moomeelu askan wi la ña fa teg ña fa toog askan wi ñoo leen di fay ñu war a liggéeyal askan wi te ku ñëw la nga soxla pour ñu war la koo defal danañ la sonal ci laaj wala ñu am fu nu jaar yéexantaloo say mbir ngir nga joxe dara ngir mu gaaw loolu yëpp ci xeetu corruption la am na ci loolu nag loo xam ne dafay daanuwaat ci kaw kay jël mais kay joxe du daanu ci kaw ci la ñuy duggee ci benn beneen point bi mooy xeetu nger yi dafa am nger goo xam ne mooy li ñu tudd léegi mooy nger ngir jël sa dëgg lu mel ne ci administration bi nga dem dafa am kayit yooyu toppatoo ñu war la koo lijjantil mën naa tudd lu mel ne passeport nga dem di lijjanti sa passeport danga nga war a tukki ñaari fana des ngir nga war a tukki ñu war la ko liggéeyal ci benn fan benn fan ñu liggéeyal la sa passeport mu génn ñu jox la rendez-vous une semaine nga wane sa billet mën nga ci boole sa wane waale sa vacances yi nga amoon bis yi muy jeex ña fa toog taafantaloo faaw une semaine nga génn am ku ne la boo joxee benn cinquante mille wala vingt cinq mille léegi ñu génneel la sa passeport déglul kii amul temps bokkul ak kële am temps bëgg lu yombak lu gaaw mais kii amul temps te lii ak xam la yow mi ñu tañ ci nii ci circonstance bii joxe loola xaalis li nga def nger la corruption la waaye ka ko jëla am bàkkaar mais yow mi ko joxe amoo bàkkaar ci xeetu nger yi bii mooy xeet bi nga xam ne ki jël moo am bàkkaar ki jël xaalis boobu noonu la ngir defaral la passeport bi danga war a tukki suba sa billet mën nga koo ñàkk nga ñàkk pexe yëkkati loolu jox ko ko su boobaa yow ma joxe amoo bàkkaar mais ka jël moo am bàkkaar lépp lu aju ci wàllu gu mel noonu nga xam ne sa àq la yow yow yaako moom lii sa àq la passeport bi sa àq la kayit bi ngay toppatoo nii mu nekk lu urgent waxuma ki nga xam ne bëgg na lu yomb lu gaaw ba tax loolu la nar a def métier fu mu dem nee na du rang nee na du xaar day yëkkati xaalis joxe su boobaa ñaar ñëpp ñooy am bakkaar ka ngay jox ak yow miy jël tey am na ñoo xam ne loolu dong la ñuy dundee nger rek moom la ñuy dundee moom la ñuy dundalee seen njaboot seen salaire doyu dem nga ñu signé la contrat waxaale ak yow salaire nga nangu weer wu dee sa salaire du tardé waaye nga tuddee ko xarmat xarmat ak koccaatu moom daal yow balaa weer wee dee da nga sa juróomi salaire toog ak xaraam yaa ngi dundee lu xaraam yaa ngi nar a dundalee sa njaboot lu xaraam kon benn xeet boobu ci xeetu nger kii joxe la xaraam ci moom walla kii jël la xaraam ci moom mais kii joxe xaraamul ci moom ñaareelu xeetu nger bi mooy nit ki joxe dara ngir jël àq mooy liñ doon wax léegi àq joo xam ne nii moomu ko ka ko koy jox du sañ-sañam mu war ko jox àq ga àq ja mu ne lii corruption la boo xam ne dafay xaram ci ñaari wet yëpp mooy kiy joxe kiy dafay xaraam ci ñaari wet yépp kiy joxe ak kiy jël beneen bi mooy beneen xeetu nger mooy dafa am loo ragal loo ragal loo xam ne ni ki la war a fànqal li nga ragal daf la chantage ne la boo ma joxul nangam lii nga ragal nii dana dal ci sa kaw danaa bàyyi lii dal ci sa kaw loo ragal lu mën ci doon te amoo benn pexe lu dul ko la mën a jañal li nga ragal te nekkul àqu jàmbur joo war a jël nekkul àq jàmbur joo war a jël nga ci dara jox ko ko moom ma ko jël te loolu mënoon na la koo jañal loola nga ragal ndax loolu noonu la ci sañ-sañam la te du fekk fekk euh, du du du fell àq kenn mu laaj la dara ngir jañeen la loolu nga xam ne moom nga ragal mu ne loolu tamit ba tey dafay dugg ci nger bi nga xam ne kay joxe du xaraam ci moom mais kay jël lay xaraam ci moom <coughs> loolu noonu le mooy tënk xeetu nger yi li ngay joxe léeg-léeg ka mu jëm day xaraam ci moom xadis dana ci dikk waaye léeg tamit ka koy joxe dafay xaraam ci moom bu ñu delloo ci alquranul karim ñu dugal fa lii nga xam ne mooy li ñuy waxtaanee mooy corruption nga xam ne bokk na ci li tardel réewu Afrique yi ñu dëkkee boo demee ci réewu nasaraan yi mën na fa am mais encadré nañu seen luwaaya tëralin ya di ko appliquer ba ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca réew ya corruption ñemewunu ko mais sunu réewu Afrique yi ngay gis ku taxaw fii ci tali bi léegi tëneem ci lay sukkandiku ku ko neex mu laaj ko lu ko neex bàyyi ko mu dem dangay ñëw yow say kayit benn baaxu ci nga ñëw ñu contrôler la war la bindal ticket nga dem fay ñu yóbbu ko ca keesu réew mu defar ci tali ak hôpital ak école mais nga yëkkati weccat jox ko kala waroon a bindal kayit ba nga waroon a fay ji ngir ñëpp bokk ko mu nekk daan bu metti ci yow ba ëllëg doo ko defati mais nga yëkkati benn mille francs wala téeméer jox ko borom teni boobu mu jël ko dem dugal ko ci soxlaam moog ña ko yónni xaraam na xaraam na xaraam na yow mi yar sa oto fa yéene woo légal li nga fas yéene mooy yor say mille francs ki cinq cent yu bari ku la arrêté nga jox ko ca kii joxe li muy joxe ngeer la kam koy jox lam koy jox ngeer la yow mi koy joxe yàlla rëbb na la kan koy jox yàlla rëbb na ko te loolu ci sunu réewu Afrique da ngay gisee ku taxaw ci kaw tali ñemelu ni mel takkob sentir ñu war la tegub daan daan yi nga xam ne nii fukk la war a doon gis nga musibay nger mooy day daaneel économique réew maanaam lu ñëpp waroon a bokk après mooy yem ci ñaar ñett ka nga xam ne nii mi ngi toog nekk benn autorité nekk benn ministre wala mu nekk benn nangam la mu war a signal benn entreprise pour mu war a jot benn suuf wala mu war a am benn kayit ngir taxawal société wala nangam ak nangam ak nangam war a milliard mais mu négocier joxe prime de signature prime de signature léeg-léeg moom la ñuy tuddee corruption prime de signature yow mi signé am na lu ñu lay bokkal loola ñu lay bokkal toll ci million te ci milliard la waroon a yegg gis nga musibay nger mooy mi ngi daaneel économie réew ñaaray jëriñu ñett mbooloo loru noonu nga koy toppee ba ci àtte tey ku amul doole ñaareel amoo loxo bu gudd ñaareel amoo wéeraay bu dëgër ñaareel la luwaay yi nu voté di tegu ci sa kaw waaye ku am loxo bu gudd wéeruwaay bu dëgër poos bu diis luwaaye mën nañ ko bañ a appliqué ci sa kaw léeg-léeg luy indi luwaaye duñ ko appliqué mooy poos bu diis ba mën na la jëli avocat mën na la ngeri àttekat ñu jël dëgg di la ko jox ba am na ñoo xam ne seen poos bu di dii sa tax ragaluñu dara ndax lépp xaalis mën na ko rek ku taxaw ci seen kanam rek mën nañ ko nger ki war a àtte dëgg ñu jox ko alal àttewul dëgg dañ ko nger ki war a wax dëgg sax ki war a wax dëgg ñu jox ko alal mu wax lu dul dëgg loolu tamit nger la ku mu ci xaraam gi day këppu ci sa kaw bakkaar bi day këppu ci sa kaw léeg-léeg dana am nitu diine koo xam ne nii dana am lu ko nitu politique di jox nger la ngir bañ dootul waxati dëgg wala ngir bañ bu nekkee ci caaxaan dootu ko waxati ne yaa ngi ci caaxaan loolu corruption la loolu tamit dafay dugg ci àttekat bale di jël nger ngir àtte lu dul dëgg kii nangoo jël alal tamit ngir du wax dëgg bu wax dëgg jotee loolu tamit dafay dëppoo kële di jël alal ngir àtte dëgg bu jotee ngir mu àtte ko kon yaa ngi gis ne ba tey bunt baa ngi gën a yaatu muy buntu nger génn na rek ca police ba ca wala takk ba ca tali ba génn na ca àttekat ba ca tribunal ba wala borom doom ba tànk ba toog yor pilimam di signé di laaj ay prime signature loo xam ne nii lu waroon a jëriñ askan yépp la mu yemale ko ci boppam waaye dem na ba ci borom dëkk ba nitu diine ka borom kàddu ga nga war a wax ki nga xam ne nii moo yor li ñëpp bokk war ko wax dëgg war ko teg ci yoon waaye kooka xam na ne kooka kàddoom mën na am lu mu euh, yàq ci ndëngate ga mu nekk bu yëkkatee kàddoom jëmale ko ci ndëngateem googu noonu am na lu mu ko mën a yàqal ba tax mu yëkkati lu mu koy jox jox ko ko ngir du wax ca ndëngateem googu nga xam ne moom la nekk su boobaa kooka laa ne nitu diine kooka euh, boroom dëkk booba chef de village booba ku mu manti doon ci ñooña mook takk der bale nekk ca tali ba di jël nger mook kële ca attekaay ba di jël nger ñoo bokk benn atte ñépp la rëbbum yàlla di këpp ci seen kaw sunu borom tabaraka wa taala boo demee ci téeréem bi mi ngi wax ni wala taakulu amwalakum baynakum bil baatili wa tutlu biha ila alxukkaami li takulu fariqan min amwaali nnaasi bil wa antum taalamuun sunu borom tabaraka wa taala nee na bàyyi di lekk seen alalu morom yi ci leen di lekk seen alalu morom ci neen ci lu dul dëgg ci lu dul yoon ci lu jaarul yoon bàyyi di lekk seen alalu morom teg ko ci jaay doole ak bëri pexe ak wuruj ak tappale wa tudlu biha ila al xukkaam ngeen jël jañax ko jëmee ko ca àttekat ba léeg fa ngay weeru ngir mën a lekk sa alalu morom ca àttekat ba nga koy jaare li taakulu fariqan min amwali naasi bilismi wa antum taalamuun danañ ci ñëw léegi mu ne texte bii sun borom wax ci suuratul baqara laaya téeméer juróom-ñett fukk juróom-ñett mu ne dafa matale maanaam li sun borom ne bu leen lekk seen alalu morom dafa matale ci mbooleem alal joo moomul jooy lekk waaye nag euh, ci fii nu nekk di waxtaane nii sunu borom li mu toftal ci bu leen lekk seen alal seen alalu morom ci seen diggante ci ay neen li mu wax ni wa tudlu biha ilal xukkaam nee na loolu mooy wane ne kon laaye ji mi ngi gën a jege li nga xam ne moom mooy corruption foofu la laaye ji gën a jege boo demee ci jalaale ni bi muy firi wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili amwaalakum bayna baynakum mooy ñenn ci yéen bu ñu lekk alalu ñenn ci yéen bil baatili mooy lu sharia xaraamal lu mel ni nga sàcc sa alalu morom so borom nee na bul sàcc sa alalu morom bul ko fëkk tudlu mu firi ko mu firee mu leen di yóbbu biha ay bi xukumatiha aw bil amwaali richwatan ila al xukkaami li takulu bi taxaakumi fariqan taifatun taifatan min amwaali nnaasi mutalabisiina bil ismi wa antum taalamuun annakum mubtiluun maanaam bul dem làqatu ci àtte ngir lekk sa alalu morom mooy li ma waxoon léegi léeg nga bëgg a nangu alalu jàmbur yóbbu ko ci yoon te yaa ko ëpp doole ca yoon yaa ko ëpp doole ca yoon soo demee ci àttekat ba fekk yéen ñaara ànd ndax am na loo xam ne ni tey boo ko jëlee ca suusa bu dee téeméer la fukk ye yaa ngi koy jox àttekat ba nga fexee jël kooko yóbbu ko ca àttekat ba su boobaa yow yaa ngi wéeru ci ginnaaw àttekat bi ngir lekk sa alalu morom sunu borom tabaraka wa taala nee na loolu bu ko def bu leen ko def sunu borom tabaraka wa taala dellu waxaat ci alquraanul karim di wax bonaayu naafiq yeeg yahuudi di leen melal ne sammaauuna lil kazibi akkaaluuna li suxti fa in jaauka faxkum baynahum aw aarid anhum wa in tucrid anhum falan yadruuka shay'a wa in xakamta faxkum baynahum bil qist inna allaha yuhibbul muqsitin sunu borom nee na yahuudi yi samaauna lil kasib ñoog naafeq yi déglu xaakon la ñeel fen ñeel lu dul dëgg waaw ñeel lu nu dëgg ñeel lu dul dëgg waaye akkaaluuna li suxti naafeq yeeg yahuudi sunu borom nee na way lekkaa kon lañ ñeel nger kon lekk nger melokaanu naafiq la ak juif sunu borom nee na juif yi ak naafiq yi kon fen lanu lekk xaa kon nger lanu waaw dañuy déglu fen di lekk nger sunu borom tabaraka wa taala ne bu ñu dikkee ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la àtteloo li xew ci seen diggante nang leen àtte wala ngeen wan leen ginnaaw wala leen ginnaaw mu fassiru ne laay jooju noonu le yeneen laay ci alxuraan dafa ñëw firi ko libéré yonent bi sallallahu alayhi ci yahudi buñ ñëwee àtte wala nga bàyyi leen àtte leen rek layee ñëw wax ko moo folli aw a'rid wala nga du moyu leen suñ ñëwee atte leen rek aw arid anhum am na yeneen laaye ko man sooxal ci alxuraan sunu borom ne ko boo leen wanee ginnaaw duñ la mën a lor ci dara boo leen di àtte nag leen àtte ci maandu ndax yàlla bëgg na ñi nga xam ne ñoo maandu boo demee ci tafsir bu ibnu kasir mi ngi wax lan moo waraloon sunu borom wax loolu noonu le xëy na indi ko dafa guddal laaye jeek euh, li mu làmboo lépp waaye daal li ci am solo te dëppoog li ñuy waxtaan mooy lekk nger lekk corruption dafa bokk ci màndargay naafeq yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy juif yi ba tey sunu borom mi ngi waxaat lu nu mel ci suratul maida wa tara kasiran minhum yusaaricuuna fi ismi wal udwaan wa aklihum wa suxta la bisa ma kaanu yacmaluun sunu borom ne wa tara kasiran minhum da nga gis ñu baree baree bari ci juif ñu bare baree bari ci juif yi yusaariuuna ñuy dëgmal yusaariuuna ñuy dëgmal di tàbbi fil ismi ci fen wal udwaani ak tooñ wa aklihimu suxta ak lekk nger lekk nger la bi sama kaanu yaamaluun bon na lool li ñuy def lekk lu xaraam le nger ñu firee ko rek lu xaraam mu gën a tënku ka nger nga xam ne moo ko gën a yaatu yàlla mu ne ñu baree baree bare ci juif yi loolu mooy seen métier waaw mooy di tàbbi ci wax lu dul dëgg ismu foofu wax lu dul dëgg nga koy fire udwaan tooñ nga koy fire ñu baree baree bari ci juif du ñu wax dëgg te ay tooñkat lañu waaye ay lekkkatu nger lañ sunu borom ne bon na lool la def loola yàlla ŋàññe woon juif yi jullit bu ko defee ŋàññ bi day dal ci sa kaw rek koo xam ne nii doo wax dëgg koo xam ne nii tooñkat nga koo xam ne nii lekkkatu nger nga sunu borom mi ngi lay ŋàññ ne li ngay def ak bon subhanahu wa taala li ngay def ak bon wax lu dul dëgg ka bon tooñ ka bon lekk nger ka bon loolu la yàlla bonaloon bonalee woon ñenn ci yahud yi wa tara kathiran ñi gën a bari ci ñoom loolu leen yàlla bonalee woon kon kuy jullitit boo jëfee jëf ju mel la bonaloon ñu bari ci yahud yëpp boobaa mooy lilay lay bonal rek mooy lilay bonal mhm. loolu mi ngi nekk ci suuratul maayida laaya euh, fukk ak wala juróom benn fukk ak ñaar suuratul maayida sunu borom nag dem ba tasaaroo gu corruption tasaaroo woon ci biir juif yi dafa demoon ba ñi leen ko war a tere noppi ca yàlla sax mujj di sikkal ña leen ko war a tere maanaam corruption ñi ko war a dénoncer buñ ci noppee sax dañuy dugg ci biir ŋàññ gi sunu borom tabaaraka wa taala euh, dañuy dugg ci biir ŋàññ ga sunu borom tabaaraka wa taala ŋàññoon juif ya ndax bokk na ci lim leen waxoon lawlaa yanhaahum rabbaaniyuuna wal ahbaaru an qawlihim al wa aklihim suxta la bisa maa kaanu yasna'uun lawla yéen xawm waaw lu tee mu tere leen arabbaani yuuna seen kilifa ya seen góor yàlla ya wal axbaaru ak seen fóore ya seen fóore ya seen borom xam-xam ya seen nitu yàlla ya ak seen borom xam-xam ya lu tee ñu tere leen lu tee ñu tere leen al axbaar ibnu kathir nee na wala arabbaaniyuun nee na humul ulamaul ummaal arbaabul wilayaat arbaabul wilayaati alayhim wal ahbaaru humul ulamaau faqat bu ñu ne rabbaaniyuun ñoo ëpp doole al ahbaar ndax nee na rabbaaniyuun mooy ñi nga xam ne dañoo am xam-xam di ko jëfe nekk borom wilaaya ñooñu la ñuy tuddee arrabbaani yoon arrabbaani yoon waaw ay góor yàlla ñi nga xam ne ay góor yàlla lañu axbaar nag mooy boroom xam-xam ya dong mooy fóore yàlla mu ne lu tee seen boroom xam-xam ya seen nitu yàlla ya lu tee ñu tere leen am an qawlihimul isma ci wax lu dul dëgg gis nga ismu kon mi ngi dëgëraatee ne ba tey kon wax lu dul dëgg fen lay firi lu tee mu ñu tere leen ndax seen màndarga la woon lu tasaaroo ci penc ma la woon mooy wax lu dul dëgg wa aklihimu suxta ak lekk nger la bi sama kaanu yasnaun bon na lool la nga xam ne seen borom xam-xam ya ak seen nitu yàlla ya ñi ngi ko doon def mooy bañ a tere lekk nger ak fen kon kuy borom xam-xam kuy sëriñ kuy imaam kuy nitu yàlla dafa jaadu ngay dénoncer lii nga xam ne nii moom mooy corruption waxuma ngay nangu ku la corrompre yow yasnaun ci ñi nga xam ne ñoo ca noppi bañ caa wax la dellu kon gis nga mbokk yi lu bon lu bon kenn du toog naan sama yoon nekku ci ak ñu lay jéem a diaboliser pour tëj sa gémmiñ lu bon kenn du ko gis noppi ci Sénégal léegi foofu la ñu toll booy wax lu li nga war a wax sa dañ dafa bari wax moom lu jug rek mu wax ci dafa bari wax nag waaw wala ñu ne booy wax sa dëgg ñu ne day xuloo waaw léegi sa nit dox ba dajee ne la ah maa ngi la dégg yaa ngi xuloo rek mu ne ko waaw ci laa toll yenent bi moom dafa weesoon xuloo danoon xeex ku ko ci wax ne man la yeggaguma fa yenent bi yeggoon yenent bi moom danaan jël jaas yi war ci kaw gëléem yi xeex man yegg ma foofu waaye wax yooyu yëpp naay wax ne ñaari mag nga tax ma noppalu ji sëriñ Abdou Lahat ak Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Cheikh El dégg na dafa bari wax dafa bari wax moom lu jóg rek mu wax ci kilifa du def lu jóg rek nga wax ci ndax Cheikh Alhaji Abdul Aziz lu mos a wokk diine ji mujjug taxaw te loolu mel na mag mu baax baax mu ñuy wax imam Makhtar Ndiaye ne na ma ko bu yàggu rek ne dugg na ci oto am ku yëkkati kàddu gu mel noonu Cheikh Alhaji Abdul Aziz di def discours mu yëkkati kàddu gu mel noonu jëmee ko ci moom kilifa du bari wax ngeen baal ma ci nettaliwaat bi lu jug rek nga wax ci <laughs> ma ne sama xel alhamdulillah bi nga xamee ne léeg ñu taxé nu ku bari wax fekk na wallahi <laughs> bari wu nu wax <laughs> bu ñu waxee la nu war a wax ba noppi eh, danañ téye sunu kurus ak sunu kaamil dañuy waxak ak sunu borom ëpp lu ñuy wax ak sunuy morom waaye li nu war a wax nag faaw ñu wax ko boobaa moom bu yeboo ñu bari wax léeg yooyu boo ko ragalee da ngay noppi danga bari wax ah moom de day xuloo rek sëñ Abdoulaye dégg na kàddu googu su ma waxee dëgg ñu ne damay xuloo kan moom mucc ñaar ñooñu lu ñu muccul keneen mën na cee mucc bari na waxak dafay xuloo léeg loolu la ñuy tëjee gémmiñu ñi war a dénoncer lu bon li suñu borom nee na yéen góor yàlla yi yéen borom xam-xam yi su ngeen gisee lu bon lu mel ni nger fen tooñ gi injustice yëkkati leen seen kàddu ngeen dénoncé ko lu ko mooy la bisa ma kaanu yasnaun day dal ci seen kaw seen ñàkk a googu lu bon loola ngir ragal ku leen ŋàññeg leen sikkal loola day dal ci seen kaw léegi terme yooyu ëlbati ko ëlbatiwaat nañ ko sax booy dénoncé lu bon ñu ne mu ah moom de léegi politicien la gis nga yooyu yëpp mooy yi ñu lay dugal rek pour bëgg yenn yi dootoo ci waxati ah moom di day politique léegi moom de politicien la yéen de ay politicien ngeen yéen de nangam politicien nee naa léegi bonaayu bonaayu politique la ñu yóbbu ci kuñ bëgg a saaga léegi ne la politicien la loolu kay yàlla ñu si yàlla musal loo xam ne nii ku ci bëgg saaga loolu la ñu lay saaga politicien kon politiciens yi war nañu xoolaat seen bopp Seydina Aliyun karamallahu wajha bis dafa taxaw di xutba sant yàlla tagg ko ne ayuha nnaasu innama halaka man kaana qablakum bi rukubihim almaasi walam yanhahum rabbaniyuuna wal axbaaru falamma tamaadaw fi lmaasi axadathum alcuqubaatu fa murru bilmacruufi mhm. fa murru bil maarufi wanhaw anil munkari qabla an yandila bikum misla alladi nazala bihim wa alamu anna al amra bil maarufi wannahyu anil munkari laa yaqtau rizqan wala yuqarribu ajalan <laughs> Seydina Alin karamallahu wajha dafa taxaw bis yi xutba gannaaw bi mu sante bi mu tàggee yàlla sant ko ne yéen nit ñi na ngeen xam ne ñi leen jiitu woon li leen alagoon mooy daan def lu bon ah te ñi nga xam ne ñooy seen nitu yàlla ya boroom xam-xam yaag fóore ya wala nitu yàlla yaag fóore ya terewuñ leen ko ba ñu woyee ci lool nag sunu borom tabaraka wa taala ci la leen mbugalee imam ali ne kon dee leen digle lu baax di tere lu bon corruption bi dénoncé leen ko injustice bi dénoncé leen ko yu bon yi dénoncé leen ko qabla an yandira bikum balaa wàcc ci yéen misla alladi nazala bihim lu mel ni la wàccoon ca yahuud ya ba ñu bañee tere lu bon digle lu baax te xam ne lii la yi ak am solo Cheikh Mor Mm-hmm. li ak am solo yaa ngi feneen de li ngay li ngay déglu maa ngi koy dégg fii <laughs> ngeen baal nu sama technicien bi lay waxal lii lu mat a déglu la waaraatekat yi war nañ ko déglu ustaas yi war nañ ko déglu rawatina ustaas yi sama mbokk ustaas yi waaw mu yéeg ba ci imaam yéeg sëriñ si imaam Aliyu nee na waalamu na ngeen xam ni anna al amra bil maarufi digle lu baax wa nahi anil munkari ak tere lu bon laa yaqtau risqan du gàttal wërsëg wala yuqarribu ajalan du gàttal fan dénoncé lu bon digle lu baax du gàttal wërsëg du gàttal fan taxul a ñàkk taxul a gaaw a dee li ñenn ñi yaakaar ne ku wax ci franc yi dangay gaaw a dee ku wax ci góor jigéen yi da ngay gaaw a dee ba foo tourné ñu ne la moytul imam Ali nee na loolu wérul wax dëgg digle lu baax tere lu bon gàttalul wërsëg gàttalul fan waaw gàttalul wërsëg gàttalul fan man de xaw ma maa ngi wax dëggam déet waaye daal li may jéem a waxaguma kas néew dara la mu wàññiwut dara daara mhm. daara bu yokk dee am sax dafa ma yokk pour dëggalee ko lii nga xam ne nii moom laa lay wax nii imam Aliyun wax ko digla lu baax ak tere won def ko te yàlla tax yàlla moom ku ko nekkal rek mu nekkal la man kaana lillahi kaana laahu lahu xanaa nga nekk ci leneen tax la jóg waaye bula la yàlla dong taxee jóg yàlla moom du la seetaan ala kulli xaali waaye kuy wax dëgg ngir leneen wala ngay digle lu baax ak tere lu bon ngir leneen lu dul yàlla yàlla dana la bàyyeeg loolu waaye waxal ngir yàlla te bàyyee sa bopp ak yàlla yàlla du la ba ku wax ngir yàlla bàyyee sa bopp ak yàlla yàlla du la ba du la bàyyi te ku nekk di wax lu dul dëgg lu mu ci jëlee yow muy wax dëgg kooku bu ci jëlee benn dana ñàkk bennam ba yow mu da nga ci jëlee junni mu sax ci sa loxo te day gën a yokk ndax maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaqin dëgg rek ma ta wax dëgg rek ma ta sax dëgg rek ma ta wax dëgg rek ma ta sax loolu ñu bàyyi ko xel kon loolu dafa duggoon ci biir ibnu bi muy firi laaye jële la indaale waxu imam aliyin jooju ak yeneen wax yu bari yum ci teg kon gis nga ne alquranul karim mi ngi tere lekk alal ci lu dul yoon mi ngi tere lekk alal jaare ko ci li nga xam ne moom mooy corruption ŋàññi na yahuud yi te lim leen ŋàññee bokk na ca mooy nger corruption léegi ñu ñëw ci xadis yi nga xam ne nii moom moo ci rot yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis ne laanatullahi ala rashi wal murtashi rëbbum yàlla yàll na dal ci kii nger ak kanuy nger ñoom ñëpp yàll na rëbbum yàlla dal ci seen kaw am na beneen riwaaye boo xam ne ni daf ca dolli waraisu ak kii dox ci diggante bi waa kay mooy léeg-léeg da nga ci tali gis ku toog solut waaye moo fa toogal ki sol tëni soo waxee borom tëni bi ba noppi ci moom ngay dem verser ñëw ci borom tëni bi mu delloo la sa këyit nga dem sa permi nga dem mhm. boobu xeet la boo demee ca fële ñuy toppatoo dara ca administration ba nga dem ca bureau passeport ba léeg-léeg ka toog ca biir du jël loola mais am na kenn koo xam ne moo nekk ci diggante ka ca bureau ba ak yow mi ñëw am loo soxla kooku mooy Raish dama cité ñaar yooyu mu yóbbaale mbooleem xeetu ki dox ci diggante gerkat bi ak kamiy jox nger bi ki nekk ci diggante bi yenent bi nee na yàlla na rëbbum yàlla këpp ci seen kaw laa ilaha illa rasulullahi sallallahu lu mu ñaan yàlla nekk ko def yàlla na la nangam dal <laughs> ko xamul yàlla xamul yenent bi rek a koy def moo tax kuy lekk nger mujj gu bon rek lay am du am mukk mujj baax lii na dugg ci bopp ñëpp ñu bàyyi ko xel kuy lekk nger kuy lekk lu xaraam mujj gu bon rek ngay am te booy dee di dugg safara bu la ko yàlla jéggalul na yéen wax na nag bépp yaram boo xam ne kullu laxmin nabata nabata fi suxti fa naaru awlaa biha bépp yaram boo xam ne li ko tax a duuf lu xaraam la mu ne safaraa ci gën a yey yenent bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallam kon yenent bi neen rëbbum yàlla yàlla na dal ci ki nger ak kay lekk nger ba kam koy jox ak ki nekk ci diggante bi ci beneen riwaaya boo demee ci sunan bu abi daawud numéro trois mille cinq cent quatre-vingt dafa wax ni moom abdullah ibnu omar <coughs> wala abdullah ibnu amr ibn al as laana rasulullahi sallallahu alayhi arashi arashiya wal murtashiya yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam rëbb na kay nger ak kami nger ñoom ñaar ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yëpp rëbbum yàlla dal ci seen kaw boo demee ci awnul maabud sarxu sunan bu abi daawud borom awnul maabud mi ngi wax ne nger mooy li ngay jox ngir yàq dëgg ki am dëgg wala dëggal lu dul dëgg dëggal lu dul dëgg fekk lu dul dëgg nga fexe bañ defal la ko dëgg fekk ko am dëgg nga fexe bañ xañ ko dëgg la ngay joxe ngir loola nga am ko dëggal lu dul dëgg xañ borom dëgg-dëgg mu ne loolu mooy corruption loolu mooy nger loolu la borom awnul maabud wax mu ne bu fekkee da ko joxe nag ngir jël sa àq yoo xam ne ni dañ ko jël ci tooñ mu ne falaa ba sa bii dara nekku ca lii yow yaa ko moom sa droit la ñu xañ la ko nga joxe dara ngir jot ci sa droit mu ne yow ma ko joxe dara nekku ca mhm. mu ne waaye loolu jaadu na mu bañ a doon mu bañ a nekk ci àttekat bi àttekat bi moom doo fa ñëw naan dañ maa xañ sama dëgg bàyyil ma joxe xaalis ngir ñu jox ma ko déedéet da ngay bàyyi rek àttekat bi àtte nga bàyyi ko boppam foofu amul joxe xaalis may woñ kenn mu ñëw naan day jox àttekat bi xaalis ngir ne dama am sama dëgg ñu xañ ma ko mukk may wuñ ko waaye lu mel ne misaal mi ma joxe dafa am tukki bu jàmp boo war a tukki nii dem nga ñu ne la faw nga joxe lii pour lii gaaw a génn ta moo pexe loolu sa droit la la ngay joxe ka koy jël la xaraam ci moom waaye yow mi koy joxe du xaraam ci yow yonent bi sallallahu alayhi dellu waxaat wala abi hurayra ci sunan bu imam tirmidi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama rëbb na moom it arashi wal murtashiya fi l xukmi kii ger ak kanuy ger ci àtte ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa leen maanaam yow miy ger àttekat yi pour ñu jox la dëgg te amoo ko yow mi ger àttekat yi ngir ñu xañ borom dëgg ji dëggam te ñoo ko moom yéen ñaar ñëpp la yàlla di wàccee rëbbam ci seen kaw ay dumaam yenent bi ñaanal leen ne musiba yi musiba yàlla na ci seen kaw toroxtaange dee tab rëbb lépp lu bon rek mi ngi ci biir rëbb yenent bi ñaanal na leen ko kon attekat biñ ger ak kay ger attekat bi ngir am dëgg wala xañ dëgg ki am dëgg ñoom ñépp la rëbbum yàlla di këpp ci seen kaw loolu mbokk yi lenn la ci xadis yi nga xam ne nii rot na di wax ci li nga xam ne mooy corruption xam naa sunu waxtu dafa jeex lu ñu ci bëggoon a indi yëpp du fi xaj waaye liñ fi jot a wax rek defe naa bu ñu ko déggee dina doy mooy wane ne daal corruption nekku rek luwaa yi dañ naan luwaa tere na ko nit ñi di xëtt luwaa di def lu leen neex waaye borom luwaa yi borom luwaa yu dëggu yi te wàccee luwaa yu dul soppeeku du changé du fi mës a dëj dëñ bind indi ñeneeni luwaa di changé luwaa yooyu te dana fi mës a dëñ kooku moo tëral atte ci riba wala ci corruption bokkul ak riba riba leneen la képp koo xam ne yaa ngi nekk di dundee riba tuub ko wala corruption kon tuub ko bàyyi ko lu ko may rëbbum yàlla dana këpp ci sa kaw yaa ngi dundee lu xaraam te dana def effet ci yow corruption rishwa ku koy dundee dana def njeexit ci yow doo am mukk mujj gu rafet lépp lu la corruption mayoon ci bànneex da nga am naqar bu ni toll wala bu ko ëpp balaa ngaa faatu baaxul du lu nit war a joxe du lu nit war a jël waaw war a joxe du lu nit war a jël ku ci sax boole ko yàlla jéggalul boo ca faatoo safara la la jëmee direct moom corruption wala iyaadu billah kon ñi nga xam ne nii ñooy àtte nañ ci bàyyi xel rawatina àttekat yi rawatina àttekat yi rawatina àttekat yi ku ci àtte àttel dëgg rasulullahi sallallahu alayhi na àttekat yi ñett la ñaar ñi wala kenn dong nga ci dem safara ñaar ñëpp kenn dong nga ci dem ajjana ñaar ñëpp safara lañ jëm ñu ne ko kanay dem safara ak ñanay dem àjjana ñanay dem àjjana wala kanay dem àjjana ñanay dem safara mu ne ki nga xam ne nii jàng na dëgg xam dëgg di àtte àttewul dëgg safara la jëm ki jàngul dëgg xamul dëgg jub di àtte àtte dëgg donte lim àtte dëgg la sallallahu alayhi wa sallam mu ne safara la jëm ki jàng dëgg xam dëgg di àtte dëgg kooku doo ngay dem aljana mu ne ñett àttekat yépp ñaar ñi safara lañ jëm kenn ki doo ngay dem aljana jàng dëgg xam ko àtte woo ko safara nga jëm jàngoo dëgg xamoo dëgg àtte dëgg safara nga jëm jàng dëgg xam dëgg àtte dëgg aljana nga jëm kon loolu àttekat yépp nañ ci bàyyi xel bul nangu mukk ku la ci sa àtte àtteel dëgg te yàlla rekk tax lañ lay fay ci àtte nga doyloo ko mu doon lu barkeel nga dundee ko dundalee ko sa njaboot mu doon lu barkeel waaye jox dëgg ko ko amul xañ dëgg ku ko am ngir enveloppe ku ko ci def balaa ngaa dee dinga ko rëcc boo duggee ci bàmmeel mu gën a tee métti yow ma sax ci loolu tamit yor sa alal teg ne dara tëwu la loo bëgg alal ko yombal da gis ku jug ne dana tëj lu nit danaa la tëj lu yow dem yëkkati deux millions wala trois millions teg ci taabalu àttekat bi attekat ba dana wax lijjantee ko ba jël kooku ne ko ràpp tëj mu ne ko waxoon naa ko danaa ko tëj pare ne waxoon naa la danaa la tëj lan moo ko mën a may pouvoir bu toll ni ku mu bëgg a tëj tëj ko mooy dafa am xaalis yaa ngay def lu bon di def lu xaraam di ko def loo ka nga koy def loo def lu bon nag lu bon doo nga lay dal la ci kenn nax kuy def lu bon lu bon doo nga koy dal bu la ci kenn nax loolu moo doon waxtaan wi ñu sant leen gërëm leen ci seetaan bi ba beneen alxemes ci beneen thème ci aaxiru zaman wasalaam texeeg tànk bu gudd barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam